وسوق إلى الأهداء كل داء أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء وجملة الوباء والسوق إلى الأهداء كل داء أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان bala wa jumlatal wabaa'i wa sox ilal ahdaay kula daay kon mbokk jullit ñi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di tàmbalee suñu kàddu ci sant suñu borom gërëm ko moom mi ñu defal taw feexu fekkee jataay bi yàlla nañ ko yàgg di fekkee ay at yu bari te saa su nekk muy yokk ci biir ak ci biti ci barke Cheikh Moussa ñu ndokkeel nag mbooleem ëpp ci doole doomu aadama boo réew mën nañ ñi koy dëkkee ñu bare bare bari la ci mbindeef yoo xam ak yoo xamul yoo gis ak yoo gisul waaye buñ nee njiitu réew mi sa xel du daj beneen mbindeef bu dul nit réew mi it bëri na loo xam ne saa buñ koy yaxantoo maanaam ñu koy jënd ak a jaay ki koy jënd nit lay doon ki koy jaay nit lay doon te bëri na lu nit di jënd wala di ko jaay moom mënu koo defal bëri na koy jaay xar te mënta defal xam ni te kàttan bi ko may ci mu mën koo jaay day mel ni moomeel la te moomeel bu jëkk la te moo ne moo am kàttanu jaay ko yàlla ku ko baaxee muy kër bu rëy nan la koy toppee ci suuf si nan la koy toppee ci jaww ji nan la koy toppee ci géej gi ba nga xam ne am na géej goo xam ne sañoo lu dul ne dangaa tàggu njiitu réew ma bu dul loolu du sotti te doomu do fi la fekk géej waaye yàllaa ko may mu mel ni kon yàlla suñu borom dafa sàkk nit dénk ko yu bare bare bare bare léegi nit mi nga xam ne ci loxoom la yooyee tege bu yàqoo ne yi tege ci loxoom da koy yàq fala doomu aadama soobu ci jamono ju ne nag rawatina jamono ji suñ maam aadama bi ko yàlla sàkkee ba war ko wàccee ci kaw suuf malaaka yi dañ waxoon suñ borom ne ko atajaalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dimaa ndax da ngay wàccee ci kaw suuf koo xam ne dafay yàq te bu fa wàccee dina tuur deret te boobu doomu aadama wàccu ci kaw suuf malaaka yi xibaar suñu borom mel ni am nañ xam-xam boo xam ne fi mu ko jëlee te xibaar yàlla xel nangu ko ndax yàlla dara wupp ko waaye mu mel ni malaaka yi nee nañ ko kii nga bëgg wàccee ci kaw suuf boo demee dana fa yàq. dana fa tuur deret te ku jàng alxuraan di nga dégg malaaka yi wax suñu borom ne ko laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa amuñ xam-xam xam-xam yàlla lañ xam ne nit bu wàccee ci kaw suuf dina yàq leen ni leen inni laa taalamuun xam naa lu ngeen xamul waaye boo tàmbalee kàddu gi malaaka yi waxoon njëkk nit di wàcc ci kaw suuf boo xoolee ci kaw suuf mi ngi yàq mi ngi tuur deret waaye du wut na nit ñëpp ñooy yàq du wut na nit ñëpp ñooy tuur deret ana ñi mucc ci tuur deret ak yàq ana ñi ci muccul te boo ko doon xayma ci pourcentage di nga ne daa mel ni yàq kat yi ñoo ëpp fuuf tuurkati deret yi ñoo ëpp fuuf waaye ñi nga xam ne sàmm nañ ba duñ yàq dañuy defar tuuruñ deret waaye dañuy sàmm deret ba dara du ko tuur ñooñu ñoo gën a néew léegi nag dafa am jaar-jaar boo xam ne bu fa nit jaarul maanaam yàqu da koy jege lool te mu mbartalu ba daanu ci yàqu bay yàqe mooy gën a yomb fuuf ci mu mbartalu ba daanu ci defaru bay defare su ko defee nag lislaam am ci liggéey bu rëy rëy boo xam ne daf koy liggéey ci doomu aadama bi li am solo mooy na nangul lislaam bu nangulee lislaam dox ci ay principam dox ci njàngaleem dox ci ay tegtalam su boobaa principe yi njàngale yi ñooy defar nit kooku leen léegi nag dafa bëri ci jullit yi ñoo xam ne seen islam dañ koo sex waaye wan nañ ko mu dugg seen biir daw ci seen yaram ba buñ jëfee mu dëppoog moom bu ñu waxee mu dëppoog moom sex gi kese ngay gis bu ñu waxee mu dëppoog moom tur yi dëppoog moom waaye buñ jëfee mu gën jege jëf ku ne xam ne ne jàngoro la joo xam ne ku gaar boo fajuwut boo liggéey bu yàlla yi duma yéeféer yi duma wàllal ndax sori wàllal li sàggante gu rëy rëy la islaam diine ju mat sëkk la joo xam ne amul fu muy bàyyi ki ko gëm soobu ci biiram bàyyee ko boppam amut lislaam lépp lay jël say suba say ngoon say bëccëg say guddi say nelaw sa yeewu sa dal sa yëngu lépp lislaam a ko war a moom bu fekkee jox nga sa bopp lislaam waaye boo nee da ngay lislaam am fooy jéem a dëppoog moom am foo xam ne sa xelum bopp ngay jëfandikoo su boobaa nag ba tey sa jox sa bopp lislaam des na te it mën naa jur yàqu-yàqu gu bari ba su boobaa mën nañoo tiimaal di jullit ñi ba tuumaalaale lislaam benn borom xam-xam dafa wax ne mi ngi sant yàlla bi mu xamee lislaam njëkk muy xam jullit ñi waaye xëy na am na jullit ñoo xam ne bu doon njëkkoon a xam njëkk muy xam lislaam su boobaa mën naa tuumaal lislaam jàppee ko lum doonul ndax jullit bu sàggan ku dajeeg moom ci pas-pasam bu woyof kàddoom yu woyof jëfam yu woyof mën ngaa yaakaar ne lii mbiram lislaam la fekk mbiri boppam la lool nag kuréel yépp la dal yàlla yàlla bu ci sàggan mën ngaa doxee pas-pas boo xam ne ku jëflanteeg yow saafoonteeg yow mën naa tuumaal Cheikh Moussa te fekk na ay jëfa ko wax sa yëfi bopp la du daray Cheikh Moussa kii woote wane taalibe bàyyi la kii woote wane taalibe tiijaan la kii woote wane taalibe Cheikh Abdou Khadir Jilaani la mën naa doxee pas-pas bu wuutee ka woote woon su boobaa nag ma ngay tuumaal ka woote woon la muy defe ko wax yëfi boppama ah. waaye bu boog moom lépp lu mu defe ko wax dafay jëfandikoo lislaam du doon mukk lu ñuy koy yeddee wala luñ koy xeebee luñ koy nawee lay doon lii nag balaa koo jullit mën a am faaw dafa am ko lislaam fekk yéeg yéeg ak moom ciy pas-pas yéeg ak moom ciy jëf ak i kàddu yoo xam ne daf koy honoré moom rafetal ay jikkoom taaral ko def ko jullit xaqan boo xam ne du mooy yàlla ci biir du mooy yàlla ci biti du mooy yàlla bu wéetee du mooy yàlla bu wéetalikoo ak a jafe nit ki fexe ba yaru xolam tàggat xelam yar ay cëram ba nga xam ne cër ya lépp lu ñuy yëngu boromam gërëm na ko du ragal mukk ku ko jafee yar say xalaat ba nga xam ne bu fekkoon say xalaat day génn cib télé ñëpp di ko gis amul lenn luñ ciy gis loo xam ne luñ lay xeebee lay doon li yombut de li nga dégg ku naan li may xalaat ay bu doon feeñ ndax nit balaa feeñal mbon ci kàddu wala mu feeñal mbon ci jëf li ci jiitu xalaat bi mu koy xalaat ba tëral plan kene koy jaarale ngir mu sotti moo tax faral di wax ne nit ki bala sacc ci biti sacc ci biir nit ki bala wax lu dul deug ci biti wax na lu dul deug ci biir nit ki bala njaalo njaalo ci biir parce que ci xol la ci xel ci pass pass fofu la moy yalla gi nek fofu la réer yalla gi nek fofu la mbon gi nek fofu la dafay defaroo gi nekk su ko defee boo jëfee mu jeexital ci moo tax nga dégg ñu naan alimul xaybi wa shahada yàlla suñ borom dafa xam kumpa xamit seede seede lan lay seede li nëbbu ci biir moo tax boo seetloo nit buy jëflanteeg moromam dafay bàyyi xel yéene ji moo tax bëri na ku la dóor mu dal nga jéggal ko bëri na ku dóor dóor bi sax dalul waaye jàppal nga jàppal ko ko neexut a dégg nag dóor bu dalul dóor boo xam ne dalul nga jëflante kook borom am dóor boo xam ne dal na te nga jéggal borom njëkk mu lay jéggalu li koy def mooy pas-pas bi ci biir xam nga kii fudd yëkkate ay loxoom rek dóor bu metti kii di nga xam ne yéeneem duutoon dóor la waaye loxo bee rëcc rek tayu ko ndax di nga ko jàppal doo ko jàppal di waaye ki xàcc ba bam leer la ne kii gaañ la moo ko tax a jóg waaye mu dóor nag suñu borom dimbali la dalul dóor bi dalul di waaye xam nga intention bi lan la woon mooy na la gaañ na dal na metti waaye nag dalul kooku da nga jëflanteeg moom parce que pas-pas bee tax kee nag dóoram dal na la waaye pas-pas bi du wutoon dóor moo tax doog ko jàppal moo tax pas-pas yi mat naa bàyyi xel pas-pas bu sell lépp lu ci waaye jëf boromam gërëm pas-pas bu lëndëm lépp lu ca waay jëf yàlla soxlawu ko moo tax ñu ne nit ki dafa war a jiital ci léppam raggu laabal xolam ci lépp lu yàlla gërëmul su ko defee nag xol boobee laab mooy jumtukaay bi jiitu ci nga mën a jaamu yàlla moo tax maam Cheikh Fall mos naa wax mag nu ngeen di jàppoo ñu daal di koy limal cëri jàpp yi dañuy raxas roxo laxas raxas raxas raxas ba raxas tànk yi su ko defee tudd baatu seede bi jàppoo ngoog maam Serigne Fall ne leen yéexee a ni ngeen koy defee baax na de waaye am na lu ko gën ne leen cër yu bokk ci njàpp te ndox du ko laal nag dafa am cër xam ne dafa bokk ci njàpp te ndox mi ngay jàppoo du laal cër woowu ñu ne ko Fall loolee ban cër la mu ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid fàttali leen aaya bi suñu borom di wax ne ñoo leen gën a jege seen buuma xol yi cër yu bokk ci njàpp te ndox du ko laal mooy xol dama xol bi bu tilimee loo jàpp bëgg ko caa def xol bi yàqu mu dëppoo ko xadis yoon saa wax ne am na lumb bu nekk ci nit bu setee léppam set bu tilimee léppam tilim allahu yéen xal bu yoon saa ne loolu mooy xol ku léppam tilim lu mu mën a def mu baax ku sa lépp mën a def mu baax nañ jëfandikoo suñu xel mënoo def lu baax mënoo wax lu baax mën na koo nuru nag waye liko yak ci bir lay yakko mo ra suñu borom wax ci alcorane yawma la yanfa'u maalun wala banuna ila man atala Allaaha bi qalbin salim bis pen ci alal du fa jariñ dom yu bari du fa jariñ la fay jariñ moy xol bu mucc ayib xol bo xamne boko boo biram ak bitem lenn lu yàlla geureumul do ko ci fek li nak fan la nit ki jaar ba ko du lu ñuy judduwaale dañ lay tagat yar la yéegale sa diggante ak sa borom ba am na loo ñime woon lool tey nga ragal ko am loo bëggoon lool tey nga bañ ko parce que lu tax dañoo defar xol bi bari alal taxul a gën néew alal taxul a bon lay tax nit di gën ak a bon ca xol ba lay nëbboo ko bóof sëñ bay jaxate ko wax maa ciy faral di teg ne kon ku la gën xol gën la fa yàlla kon pas-pas bi ñu am ci yére yu rafet yi dàll yu rafet yi téléphone yu rafet yi oto yu rafet yi kër yu rafet yi xol bu rafet ko gën parce que dàll yi fi nga koy bàyyi kër gi fi nga koy bàyyi oto bi di ko génn bu la neexee bu la naqaree yàgg-yàgg fa jëm nag la la fay musal mooy xam taat kon kay pas-pas bi nga am ci kër bu rafet yére bu rafet oto bu rafet pas-pas bu ko raw nga war a am ci xol bu baax xol bu rafet su ko defee nag boo wanee ginnaaw yii sa xol moo lay jàll xol bu mucc ayib dafa mat a jaayante xol bu mucc ayib dafa mat a sàkku gis nga xol ci la àjjana yi dugg ci la bànneex di dugg ba faw te dootul génn ay eh, xol bi li fekk mi ngi li fekk mi ngi tilim bul garantir mukk ne da sax ci bànneex amul ma dem da ñëw yàlla bu la yàlla na too iñaan ndax ka ngay iñaane la nga koy iñaane yàlla koy dollil nga di ko gis te doo ci man dara sa xol di tàng suba ngoon guddeeg bëccëg te ni muy tàngee fii boo ëllëgee la lay gën a lag lu ko fi jaar su ko defee nag diine lislaam dafay ñëw indi la jumtukaay yu lay musal ci yii yëpp xamal la ne lu am yàlla ku am yàlla te naay faral di wax ne mboolem yàq yi ci kaw suuf li koy jur mooy gis sa bopp gis sa morom bàkkaar boo yàlla goo li ko jur mooy da gis sa bopp gis bi nga gis sa bopp mooy dugal rëy mooy dugal kiñaan mooy dugal ngisal mooy dugal bokkaale mooy dugal yu bare bari la maam Cheikh Fall daan wax naan ku am bopp yenu ku am bop yenu moy ku fi nek ñu yenn la nga yenu wala nga yenn sa bop yow way ku fi jog ki dem ba jeex tak ci boromam xamne ne amut xam manul dañ ko amal manal ko su boba bu bëgge gis bopam du mën ta nek sax ndax newoo fi ki fi ne di la jëfëndiko nga kaayam muy défé ci yow di waxé ci yow limi défé ci yow ak waxé ci yow lo ci gisé sa bop te señ tuwa dal nako ko tu len di gis sen bop ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane woo mat la te ku seytaane woo mat mu ne safaan bële la jëmee lan moo la ko jural gis sa bopp lan moo la ciy musal ñàkk gis sa bopp lan moo lay teree gis sa bopp mooy gis yàlla borom jàmm li fekk yaa ngi ne jàkk yàlla ci lépp di ko gis ci biir ak ci biti boo wéetee boo wéetali ko mënoo gis sa bopp yow boo mu boo muccee ci gis sa bopp nag mucc nga ci mbooleem bàkkaar boo xam ne ak def ñàkk defaru koo xam ne gis sa bopp koy jur gis sa morom mooy waral saagante gis sa morom mooy waral xeex gis sa morom mooy sabab yu bari jëw ak rabaaj ak yëpp yaakaar ne yaa ngi fekk sa morom rek soxoranteeg iñaanante lu ne mën a judd waaye boo gisul sa morom xam ne sa morom newu fi mbindeefu yàllaa fi nekk te yàlla lim bind da cee sañ lu ko soob te benn mbindeef bu fiy def wala bu fiy amal loo xam ne neexul yàlla amut amul de kilo la dóor ak ki la xas ak ki la saaga ak ki bët boo ko mën a gisee dul ne yàllaa ciy jaarale li ko soob ngir nattu la nang ko soobee nga war koo nangu te rafetal maanaam yow sa bët daa parte yow gisagoo waaye gis-gis bi boo ko amee ci képp ku lay teg fitnaa ko coono dangay xam ne yàllaa lay nattu moo tax dégg nga sëñ Tuubaa ne Tuubaa bi buñ gëmoon yàlla ma waru leen ak pay ci yàlla ndax lu ma am ci yàlla ñoom ma ko may ko duutoon ak moom ñoom waaye moom ak boromam la waaye ci Tuubaa bi ñun nag ana suñuy tubaab su ma nee ana suñuy tubaab mooy ana ñi nga xam ne ñooy bunt yi yàlla jaarale suñuy nattu ñu war ñoo tarbiya war ñoo tarqiya war ñoo teg ay fitna ak gi ñu suñ diggante ak borom lii nag jullit warta ragal ay nattu jullit warta ragal ay fitna parce que ñoo koy dimbali ngir mu mën a yéeg diggante ma boromam ba mën a làq ngërëmal yàlla moo gis nga ndam ko tarbiya li muy faral di dégg sama waajur mi ngi may fitnaa lool sama mag mi ngi may fitnaa lool sama rakk mi ngi may fitnaa lool fekk ne du waajur du mag du rakk yàllaa lay fitnaal moo koy jaarale fi ko soob moo tax may faral na wax ne saa bu ndongo tarbiya waxee ne ñi may fitnaa la ko jéem a teg kiiraay xàmmee naa leen kooku yegg na boo xàmmee ki lay fitnaal kan la xàmmee kii jéem a dox sa digganteeg yàlla kan la weesu wut yàlla moo tax ñu ne benn waaye daa faatu ku ne naan lii ko rey lii ko rey de lii ko rey de ñu ne bi dof bi fekkee jotaay bi dana leen wóoluma ci yàlla gis nga tëraayam bii tëraayam bii wóoluma ci yàlla lii yàllaa koy faral di def aka leen a wax dëgg dof boobu dafut de tëraayu dee yàlla rek kii mooy ki wax dëgg su ko defee nag yëg bi loolu di ko dund day tax nga nangul yàlla ci mbooleem melokaan yim lay feeñoo te lii dafa war jullit jullit dafay nangu dogalu suñu borom nangu bi ngeen nangu dogalu suñu borom daanaka dafay féexal sa xol ndax xam nga ne lu am yàlla te yàlla lu mu dogal dafa gën léegi boo nee jullit laa gëm naa yàlla wóolu yàlla yàlla di dogal doo ko nangu yow ana sa gëm yàlla bokkul ci sarti gëm ponki ngëm borom benn la gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm bis gëm malaaka yi waaye na gëm dogal dañuy faral di wax ndogal bu neex ak ndogal bu naqari ma ne góor yàlla pire ndogal bu naqari xamu ko lu yàllay dogal muy naqari loolu nañ ko bàyyee julitu xaam waaye julitu aarif bi ne lu am yàlla te yàlla lu mu dogal daa gën benn aarif daan def buñ ne tudd mu ne alhamdulilah bu ñu ne ko takk mu ne alhamdulilah ñu ne ko dëj mu ne alhamdulilah lu mu war ta yàlla gisu ko diw faatu na mu sant diw judd na mu sant diw takk mu sant ndax kii dogal juddu mooy dogal takk mooy dogal bakkan bu faatu di waaye la ko dalee ci aadama ba koy mujjee juddu bu doon kenn faatuwut <laughs> dana yéeme de di nga bëgg a ñëw caaro yi embouteillage doomu aadama téye la téye la laa la wax léeg-léeg nit màgget màgget toog dem gu muy dem noflaay la léeg-léeg nit gaañ dem gu muy dem noflaay la ci moom moo tax ñu naan ici repose ici repose mooy fi ngay noppaloo kasa sam benn da ciy teg ne na ci ñoo xam ne woon bind ici repose li waroon a bind mooy ici en difficulté ndax daa mel ni ku faatu rek ñu ne ici repose ici repose tel tel tel ici repose tel tel te am na ñoo xam ne liñ wax ci kaw suuf jëf ko fi ñooñu mérité wuñ ici repose lañ leen war a bind mooy ici en difficulté. jëf lu woon te tuubu ko lu ci war a tege ay coono ko fi rek. ñu jàngal ci message sëñ Tuubaa dane boo nekkee ci kaw suuf di lekk wërsëgu yàlla wii wërsëg bi jural la kàttan ak xam-xam ak man-man booy delloo sa boroom sàkku ngërëmam waaye yaa ngi ci ay fokki caaxaan ak i mooy yàlla sëñ Tuubaa boo ca tuubul dellu ca ginnaaw te farlu ca lool booy dee dem sa war mujtahidan fa daaxilu niiraani kon daa mel ni jullit biy dund ak yéeféer bi bi bu ëllëgé am na kilifa gu mag gu tedd gu sa dara umbul goy dajé muy suñu borom. bu jëri bi xamé conscience da fay waajal. gën ci wàccaa ci sa bop rek moy fexe ba l'islam jël sa lépp boy wax muy ak mom boy jëf muy ak mom sa dund depp ak l'islam su boba kenn du yedd du ci saayir du ci bàtt. boo yeggee ci yàlla sax boo xool ñàkk teggin boobu ñu dàq na ci pay bi nii la ko sëriñ bi jàngee kon mu mel ni yoonu àgg ci yàlla lu am la waaye nag da ngay ànd ak koo xam ne xam na yoon wi mën laa woon mat su ko defee ku la xamoon dégg bu la xamee tey dina xam ne kii defar nañ ko tàggat nañ ko nit ku woyof la nit kuy suufe suufalu la nit kuy toroxlu la nit koo xam ne dafay jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi tabe ànd ak yàlla ci teggin foo ko mën di fekk

loolu lan moo ko tax a baatin boo xam ne dafay defar sa baatin pas-pas boo xam ne dafay dëppoog pas-pas bi yàlla gërëm ci yow su ko defee ngay dund lislaam piir boo xam ne buñ nee lan ay jikkoom bu ko lambee ci yow fekk ko ci duñ diggaale mukk mukk mukk ba mu war la lum la yéene yàlla la ci jiitu lii nag boo seetloo ñun ñaan ay jullit lañu ñëpp ñëpp nga peese leen ci di nga gis ne ñi ci dox bariwul la ko waral nag mooy ñàkk a tërbiyu ñàkk a tarqiyu ba mën a yéeg suñu diggante suñu suñ ba nga xam ne ngërëmal yàlla mooy suñu jubluwaay su ko defee Cheikh Moussa nag mën nañ ne lii la woote lii mooy li ko tax a jóg li ma yàlla yoor ci jottali xeerul aalamina ca Màkka mu teg ko ci loxo Xaadimu Rasuul mii di jëwriñam Xaadimu Rasuul yoor ma ko fii ci daaw lu mu ci teg ma yëkkati ko ca kaw ne ku bëgg ñëwal jël du ma ci taxaw du duma ci dellu ginnaaw te kanam kanam la jëm kum neex kanam la jëm taqari kanam la jëm ca munu ca dara yàlla nañ ko yàlla fayal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xam ne su ko xaaritoon jar danaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.